moo leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal tey sàkku se ñaan di jégalu bu baax a baax a baax nag macha allah si géje jokko bi macha allah nekkoon si ay yette rek macha allah di siyaara jullit yi àddina bi yëpp si weer wu màgg bi nu nekk muy rabiul awal nu gën koy xam si gàmmu di ñaan yàlla may nu nu am yoolu gàmmu tabarakallah di siyaara ñëpp ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp macha allah tey ñu fas yéene eh, partage ak yéen lenn si ay njariñu alquran si loo xam ne day saafara tawat day saafara yaram boo xam ne dafa sutante def naa leen wax rek lu waaye di ñaan war na see boole yaram ndax bokk na si bànneexu àddina yépp macha allah mooy wér mu mel ni ki nag. dëkk boo dem da nga fay gis ay pharmacie mu bëri médicament lool lool lool lool lool wante dafa am médicament yoo xam ne doo ko fekk si benn pharmacie lu dul téere yàlla bi muy alquranul karim ndax wanu nasilu minal quran ma huwa sifa wa rahmatul lil muminin mooy yàgg di wax lool ne tawat mbindeef la yàlla mi naan ko demal saa yu ne ko ñëwal rek mu bàyyi mooy tax fu tawat man di toll rek na jàmm bi am yaqin na yaakaaru jàmm bi gën di kawe si ne yàlla mën na koy saafara tabarak naa njëkk si maye képp koo xam ne da nga am tawat bu ñuul da mooy feebar boo xam ne mën nañ la diagnostiqué mën nga def bilan nu ne gisuñu si yow dara te yow mu wóor la ne wéroo ñu leen di may yoon boo xam ne yoonu sikkar la te mooy saa yoo jullee fajar ba pare balay daray dem si sa nga jël ndox nga jàng ñeen fukki faatixa ak benn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 yàlla dana la ko wàcceel te mooy tawat yi nga xam ne bi macha allah mën nay doon feebaru sayatin te mooy seytaay yi nga xam ne day dugg yaram toujours yaram di nagam toujours yaram di newi toujours fa tabarakallah biir di gom gonfale toujours it bopp di metti baraana si dinaa koy wax ne boo dee seet quatre-vingt-cinq tawat yépp léegi eh, tawatu leneen la yooyu nag ngir di si mucc fa tabarakallah médicament yi ngay jël day si bore téere yàlla bi tamay alxuraanul karim yoon boobu macha allah fu ne fu ne fu ne si àddina jot nañ si ay appelu ñaan ndax ñoo xam ne bii jël nañ ko def si tawassul lanu dañ jàmbat ak feebar bu mu mën a doon rek yàlla wan leen si résultat ba tey bismillahi rahmaani rahim képp koo xam ne da nga amee tawat nga jéem a xam sa siifur yàgg nay wax loolu nan di jéem di gëstu di xam siifur ku amee numéro téléphone rek yaa yaa ngi sa numéro. yaa ngi sa code tur bu nekk kon dafa am lu muy jàpp boo jëmee xam sa tur lan lay jàpp da ut ndox nga jàngalu tol noonu si bismillahi rahmaani rahim soo pare nga tëjee ko juróom-ñaari inna ansalnahu fi laylatul qadr nga ëf ko si ndox ba fi tabarakala di koy naan moom it lépp luy tawat bu ñuul si kàttanu yàlla yàlla dana la ko woyofal ba tey tamit man nga bind ayatul kursi juróom-ñaari yoon bi xurufil muqatta maanaam araf yi day day doo ko doo ko taqale juróom-ñaari ayatul kursi nga bañ a taqale araf yi soo paree nga bind cent onze basmala te mooy bismillahi rahmaani nga teg si fa kasafna xankal xata ak fa basarukal yowmal xadid nga bind ka cent onze fa tabarakalaa lii lépp ngay boole nag def ko saafara soo ko defee saafara mooy nga def ko ndox da ngay koy def ñaari parti benn parti bi da ngay naan ba mandi ay yoon fa tabarakallah beneen bi nga koy togg ak lu ànd ak dugub di koy xewlu lu ànd ak dugub di koy xewlu moo xam ruy la moo xam laax moo xam fonde na ma mbéyeen yeeg sàmbeen yi baal fa tabarakallah boo xëyee muy jiitu see nga di koy naan sa tàngoor bi wala nga naan ko rek tëdd it te boo koy naan mu tàng macha allah loolu lépp luy xeetu feebar bu ñuul bo mu fekk si yaram si kattanu yàlla feebar boobu day randatu kon lii lu néew la si loo xam ne bi day saafara lépp luy tawat loo xam ne bi partagé nañ ko ak yéen fa tabarakallah juróom-ñaari wa samaa'i wa taarix it képp koo xam ne da nga am tawat bu ñuul surtout boo xam ne dafa rax ay mbir wu jinne soo ko mënee bind ba nga koy bind sart ba mooy nga sol lu weex sart ba it mooy nga jublu penku soo paree nga def ko saafara moom it def ko ndox bu bari di ba màndi tabarakallah lépp luy tawat boo xam ne tawat bu ñuul la te mooy tawat boo xam ne dafa rax mbiru sayatin fa tabarakallah mbiru ngelaw ak xeet yooyu yëpp si kàttanu yàlla eh, tawat boobu dina wàcc fa tabarakallah ni may yàgg di wax rek nan di naan bu baax si alxuraan nan di naan bay mandi si alxuraan ndax fa tabarakallah eh, jëmmi eh, ndox yàpp ak deret la leneen lu sarax rek fa tabarakallah bokk si te léegi yaram yu bari fasu nan yaram yu bari nagam nan fa tabarakallah dana néew lool nga gis nit bariwul lu muy jàmbat jàmbat yoo xam ne bi amaana yàgg na wala amaana xaw nay chronique si moom yooyu yëpp na fa tabarakallah lépp lu ñuy jël si loo xam ne si côté médecine la nan si boole waale alxuraanul karim moo xam dangay ngay jàng di di naan moo xam da bindi di naan moo xam da ngay lekk ba ñàkk yooyu yëpp tabarakallah day segg lépp loo xam ne lu ñuul la woon ndax leer ak lëndëm du nu dëkk leer ak lëndëm du nu dëkk fa tabarakla soo nekkee si néeg bu amee làmp si néeg bu lëndëm boo taalee torche rek danga gis noona lay demee booy naan alxuraan lu fa nekkoon si lu lëndëm loola day randatu su dee lu doole ji woon lool noona lay randatoo di randatu ba seey wala ba alku fa tabarakla loolu lañ doon partager ak yéen ñi nga xam ne ñuy topp si Wadduha TV ñu ñaan yàlla lépp lu si ni jël rek yàlla defal ko si barke ñu ñaan yàlla yokk wér yàlla yokk xéewal yàlla yokk sutura yàlla yokk barkel yëngatuy fa tabarakallah yàlla gën xiir tamit si liman ak lihsaan seen mbokkul alxaaji Modou Cissé bu Wadduha point org wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah